sur la route de Bercy, Bercy, Le 4 juin, c'est très bientôt. en Vision, vous et nous. Et une fils de Château une sénégalaise nous, fi euh, de société sénégalais initiative je pense que

bon léegi nag ba ma déggee ni Wally Seck day tëgg Bercy Wally suñu frère di doomu sénégalais suñu fierté lay doon en tant que sénégalaise euh, moo tax nag tey Paco Afro lu mu leen di euh, euh, Wally day tëgg Wally suñu frère la suñu rakk la organisé Bercy le 4 juin mu doon lu rafet li nga xamné ne mbégte la su ñun ñu don sénégalais tay suñu mbégte la suñu fierté la en tant que doomu sénégalais euh, ni ma ni ma gisee affaire bi affaire bu rafet quoi euh, affaire bu rafet la daal en tant que doomu sénégalais man dama bëgg kuy liggéey dama bëgg koo xam ne dafay ñafewu parce que dañoo nekk ci dëkk boo xam ne ku liggéeyul doo am ku liggéeyul nga liggéey mën a tekki tey sama lii rafetul rafet rafetlu nañ ko di di di waxtaan ak sama client yi Tako Afro jënd na billet bari bàyyi leen ko fii ku jigéen ñu jël rendez-vous bari na depuis bañ déggee Wally Seck bi ba tey sama carnet yëpp fees na dell muy mèche yeeg muy coiffure. waaw gis ngeen waa Sénégal li yëpp pour jàppale Wally Seck rek muy suñu rakk muy suñu frère muy suñu fierté tey muy doomu sénégalais ñuy préparé Bercy la 4 na ko ñëpp préparé te bépp artiste tam bu ñëw nii rek lay doon ñun jàpp rek lañ si mën parce que ñun ay coiffeurs lañ ñëpp suñu artiste lañ dañuy jàppale rek.

am nañu closure am nañu las frontale am nañu lépp loo leen soxla si cheveux brésilien parce que cheveux nag il koy tas fii chez Taco parce que man maay Taco afro cheveux parce que cheveu c'est chez Taco di préparer la carte bi comme sama frère bi nu mu ko waxee donc le 4 juin rendez-vous tous euh, à, Bercy le 4 juin venez soutenir l'initiative venez soutenir aussi Taco afro qui def parce que comme jàppale nañu

yàlla mooy sunu borom